ginnaaw bu victime u Dubaay porta porte yi wala ka di euh, <laughs> ko Makosso di waxee le Kaka Gang de Dubaï nekkee victime ba 53 ci suñu ay compatriotes sàkku si Jamra ñu eggee seen biir euh, kilifa yi ba ñu ko war a dégg dégg ko donc président Macky Sall bi mu ma recevoir te maa ngi ko ciy remercier waat parce que il n'était pas obligé de le faire euh, waxtaan nañ ci bu yaatu bañ ci pare nag am na engagement bu ma jël devant le chef de l'État dama ko ne ñun Jamra comme que amuñu habitude di def les chose à moitié may ma quelque semaine ma lijjantil la liste bi seen identification seen i localisation numéro de part et cetera mu ne ma parfaitement d'accord boo ko lijjantee ba mu sotti nga dellu waat waaye bi may laata tàggoog moom dañu d'accord ci dara li ñu d'accord mooy il faut faire la part des choses entre les fausses victimes mënuñu leen tuddee victimes sax parce que ay complices lañu yoo xam ne le goût de l'argent facile jaral na leen ñu dem Dubaï jaay seen ngor dem ci ay féticheur milliardaire gënuñu la ndey gënuñu la bàyyi di ay doomu aadama comme yow ñu naan seen yu bon naan seeni laxatif nga jaaxaan ñu yebbi seeni ginnaaw kër ci sa kaw jël quarante mille dollars jox la ça fait vingt ma ne président Macky Sall ñoo ñu itteelu ñu Jamra parce que ku bëgg a bon bëgg yëfu wëyu di nax nit ñi di tukki Dubaï Dakar Dubaï dakaar di yore say Mercedes di xoggaliku te ni nga def ba am ko ñun xam nañ ko ma ne ko ñooñu ay wuyu lañ nañ leen tegee ne ñi itteel Jamra nag mooy les victimes mooy xeetu victime yi fi amoon au lendemain de la chute du colonel Kadhafi ndax foofu aussi c'est la même mafia dañu gëmloo jeunes yi ne leen waaw La Libye sort d'une guerre terrible. C'est un pays qui est à reconstruire. soxla nañu ay plombier ay maçon soxla nañu ay euh, architecte xale yi di bindu rek boobu garaawul woon sax c'était entre huit cent mille et un million cinq cent bref loolu yëpp dund ngeen ko soxla ma di ci dellu si waaye ñu ngi remercier te yàlla na ko yàlla bindal yiw fa mu ne ca Barzak maître Alioune Badara Cissé qui à l'époque était ministre des affaires étrangères moom moo ma ñu toog waxtaan ma indil ko preuve yëpp ci gàttal mu def wareefam parce que ñooñu ba ñu ne cëpp Tripoli et c'est toujours le même scénario partout lii employeur trafiquant yi def mooy ba xale yi ne ca Tripoli ba rabatteurs yi jot seen commission alors keroog la ñu gëj a gis les les intermédiaires xale yi nag la ñu leen doon dikk au départ Dakar ak la ñu fekk à Tripoli c'est diamétralement opposé ba pare nag selon le même scénario seen euh, employeur esclavagiste dafa confisque woon seen passeport le ministre des affaires étrangères Alioune Badara Cissé def ci geste bu rafet ñu defaral leen des sauf-conduits diplomatiques ñu rapatrier leen voilà le scénario est le même pas pour les les les les, les complices du Kaka Gang mais les complices les les victimes des trafiquants de migrants ndax ñoom ils ont été victimes retenez bien ces mots du gangster sénégalais grand trafiquant de migrants di Serigne Bassirou Niang dinaa leen wax comment Jamra a réussi à le faire emprisonner il est en prison à Dubaï moom lan la def il a des rabatteurs des intermédiaires ici à Dakar et particulièrement à Bargny et au niveau des villages traditionnels ñoo koy wutal ay clients naan waaw xam ngeen day Dubaï c'est un pays en pleine émergence un pays pétrolier dëkk buy buy buy buy buy buy buy féey ci naataange waaye malheureusement les Dubaïotes les habitants de Dubaï ñoom dañuy jomba def les travaux subalternes ba tax na yaa des milliardaires dañuy soxla ay jigéen yu leen di defal baby-sitter ndax bu dee ku góor ke ku jigéen dañuy liggéey dañ fay bàyyi doom yu tout tànk soxla nañu ñuy garder les personnes du troisième âge soxla nañu. Euh, Euh, ñuy arroser seen i jardin soxla nañu ay gardien et cetera cetera xale yi di bindu rek li tax bi gën a metti le trafic bi amoon libi ay huit cent mille un million cinq cent bii quatre millions cinq cent la ñu leen laaj c'est un réseau tellement bien ule que au départ de Dakar Serigne Bassirou Niang le grand gangster boo xam ne ñun dinañ ko topp ba état bi jàpp ko kooku rabatteur am yi ne fi à Dakar balaa ngaa yéeg ci avion bi da ngay joxe à compte deux cinq cent parce que xale yi dañu am deux groupe de victimes dafa am groupe yoo xam ne Dubaï la ñu am comme destination mu am beneen groupe bu ne Canada la ñu bëgg a dem waaye avec escale de transit à Dubaï. voilà les deux type de victimes yi sëñ Bassirou Niang lor bu xale yi fayee seen deux millions cinq cent embarqué waaye ba ñu ne cëpp du Dubaï moom Serigne Bassirou Niang moom mooy encaissé de main en main propre le reliquat de deux millions doog a jiitlanteeg xale yi nag yóbbu leen góor ak jigéen nag parce que du ay jigéen rek yóbbu leen soi-disant ci benn hôtel waaye foo xalaate la parce que foofu deux jours rek lañ fa def ba pare mu ne waaw léegi dama leen di yóbbu ci benn centre de regroupement voilà pour ñu gën a mën a gérer la suite des événements waaye centre de regroupement boobu rëba sa ko tane parce que dafa fees del ba dañ leen di paquetage foofu la dajale ay victimes te yaay toppatoo sa lekku bopp ba pare mënuñoo génn parce que dafa confisquer leur passeport alors mu téye leen fa ñaari weer xale yi dem nag ba maar def pression ci moom ne ko di ñu lett mbaa nga firiñu ñi nga dig li du liggéey à Dubaï nga jox leen liggéey ñi nga waxoon ne dañuy def benn escale de transit à Dubaï pour nga yóbbu leen Canada nga jëfe ko bi pression bi méttee ci la leen yóbbu ci ay complice ay complice u naar yu nekk foofu ci benn société bu ñuy wax Platinum Immigration on a tous les documents ici documents yi la leen sëñ Bassirou Gueye signéloo Platinum Immigration signé leen ay documents sous prétexte que en attendant ñoom ñu jot seen këyit Dubaï et en attendant ñi doon def euh, escale de transit à Dubaï pour aller au Canada Platinum Immigration qui sont des complices de Sëñ Bassirou Niang ne dinañ leen utal des petits boulots ay balayeurs ay euh, ñuy def ménage ci kër yi ba pare nag dañ leen di loo inscription bi da ngay fay xale yi def loolu yëpp ndekete furaas dul amul liggéey amul dara